thank you gunge Niang Ballo waaw suñu borom may ko ndam nga ñëwaat ak moom ci kër sa diggante ak Niang Ballo waaw dañuy santaat yàlla rek Niang moom xam nga làmb boole wuñu te Niang borom xol bu rafet la Niang Niang man li ma ko wax rek mooy Niang li mu am nii li moo gën a ndaw si ni mu war a am Niang xol bi dafa rafet barki alxuraan du man li ma nekk mbër wala nekk sama gaan moo tax de mais Niang xol bi moo rafet tey ku xoolal ñi ñëw yéen lañ ànd moom di ko ñaanal rek ndam bi yàlla na ko jik yeneen ndam yu gën a mag barki sëñ Fallou Mbacke waaw ñu ngi koy ñaanal rek di ko ñaanal xam nga Ibou tamit xam nga di ko encouragé champion la mais dafa dajeek champion xam nga ñang dafa ko gën a doon champion duma ko daan ko loolu nag terewu ko doon champion mais nag ki dajal da di gaynde waaw di ko ñaanal combat si kanamam ñang na ko ponkal yi jël bu ko champion yi jëlee xam kan mooy ñang baalo comme kan comme fi bu laal ma la gaaw bu laal lañ soxla barki Seydou bu laal mais bu laal tàng na ci bu laal bu jëlee ñang ñaŋ wane ko. ponkal bu ñu jëlee ñang nga xam kan mooy ñang ñii du ñu boo xoolee bu ciy génn du ci sonn. dañu bëgg a combat boo xam ñang day sonn muy genre bu laal yooyu mbëri mag yi bu ñu ko jëlee ñang wan ne qualité am te incha allahu rabi ñang dina wane boppam. fu ñu dégg mbëri di fa dégg ñang mbaalo bu soobee yàlla. alors Tafa fi may mujjee ak yow mooy jamono ji parcelle gis nañ li nga xam ne bi fi am 200 pour cent parcelle bi ñu gis ay mbër yu fi am combat mais dégguñ Tafa ba tey mu génn ci média ku ci mel le roi des arènes Petit Lo tey bëri na daan mais ba tey dégguñ Tafa mu wax. waaw mais parcelle lépp a ngi fi parcelle Cambérène maam fii li fi war a génn sax génnagul boo xoolee ñëpp a ànd a bokk a a xeex si kanam dinañ gën a gis booy seen qualité di leen ñaanal rek booy si bëre am si ndam yàlla na leen ndam jiig booy si amagul combat yàlla nañ am combat ñi si am combat te xam nga combat yi ñëwagul yàlla na ñëw ñu am si ndam yu kawe parcelle Cambérène jëm si kaw incha allah rabi le cinq bésu le cinq waaw waaw ñi ngi koy waaj bu baax rek xam nga parcelle moom yaa ma gën a xam dañoo mën bés bu bis ba gars yi dañ xam ñen ñooy waa parcelle waaw du woo ñëpp maas maas day jàpp si affaire yi quoi waaw waaw maas eh, eh, kii kii maanaam day dañ koy gërëm rek waaw kii moom képp kuy mbër si si tund bi xam na kuy maas parce que daa mën a sonn ci mbër yi waaw maas li muy daj ci mbër yi yàlla na ko ko yàlla fay waaw da ciy daj ci axam di ci daj ci tempsam ci doolem léppam te loolu yàlla na ko fay parce que gox bi lay jàppale rek lépp lu mu def boppam la ko defal parce que ñun ñëpp drapeau gox bi la ñuy xeexal kon ku si nekk da ngay def mbir mi sa mbir tey dafa mbër su ñang amee combat man nekkuma mbër supporter laay doon ba ñang daan ba pare su Giro amee combat man du ma nekk mbër damay nekk supporter ba Giro daan su ma amee combat ñoom duñ nekk mbër ñoom ay supporter la ñuy doon moo tax ñun ñoo bokku ndey ñoo bokku baay te li si kanam raw li bët gars yi fii dina am ay champion yu mag a mag te fu mbëri tool dinañ fa dem bu neexee yàlla yàlla na ndam li jig ñang yi leen di ndam